kiñ ñu toogal nii moom mooy Babacar Diouf Babacar Diouf mi nag moom ngeen dégg ñuy wax ni bi euh, ki nga xamante ni mooy aji saar jóge fële ca Maya euh, nekk fa ci école élémentaire bi mu demee CM fii la daal di ñëw ci këram la nekk euh, comme li ñuy wax naan loo xam-xam demba ma demba gën laa xam demba kon euh, tey ñu ngi toog ki nga xamante ni moom moo ko yar ci kër gi nekk ak moom ci kër gi xam ko bu baax a baax euh, sëñ Diouf ñu ngi lay nuyu ginnaaw bi ñu la euh, nuyoo dalal la ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan. asalaamaaleykum mbokku Leral TV ñu ngi leen nuyu di leen di sant bu baax di rafetlu seen ñëw fii ndaxte aji li ñuy dégg ci moom bari na li ñuy dégg ci moom bari na bon te lépp ay mbokkam rek ñoo koy wax. ak ñoo xamante ne du ñu ay mbokkam te ba mbir mi xewee ba tey bon aji fu mu nekk ñun lu nit mën a mën a wax ci moom rek daa fekk yow xamoo aji fu fu mu wàqee ko aji ñun ñoo ko yar suma kii doomu suma doom ndey la papam papay aji suma doomu ndey la kon aji xam naa ci moom lu bari sama jabar moo ko yoroon mu nekk ci kër gi nekkin bu rafet aji loo ko sant mu def ko foo ko ni mu dem te ñëw fii lay jàngee ba dem dakaar ñëw déboo ko si fii jël si ay kayitam pour mu dem dakaar nekk fa di liggéey ba mu nekkee dakaar nag bi am liggéey muy liggéey ci lay liggéey ba attroupement bi fekk ko foofu li xew ñun ñëpp ñoo ko déggandoo bon ba muy xew fekkewuma ko yow fekkewuloo ko li ñu dëgg ci aj ñun ñëpp ñoo ko déggandoo waaw kon ñiy wax ci aji loo xamante ne lu ñaaw la ñooñu xëy na daa am loo xamante ne moom lañ seqoon ak aji ci ay jamono te ñun xamuñu ko ñuy wax loolu mais aji ñun ñi ko yar liñ ko xamee nekkul loolu ñuy wax. yow mi ko yar euh, xam ko bu baax am loo def ci moom ndaxte buñ ne diw moo yar diw rek am na ay jikko yu def ci moom suñ waxee dara loo xamante ni yow defoo ko ci moom dana la metti lool bi nga déggee wax yooyu yëpp nan la la def yow mi nga xamante ni yaa ko yar. wax boobu daf ñoo tuuse ñu dégg loo xamante ne naqarloo nañ ko trop parce que ki nga yar wala sa doom bu ñu koy wax loo xamante ne du dégg da nga am problème waaw parce que aji liñ ko waxal ci lu ñaaw ci réew mi ñun yarewuñ ko noonu aji li mu fi nekkee woon comme ñun ni ñu fi nekkee rek la fi nekkee woon dund bi ñuy dund dund bii la doon dund nii la nekkee woon ak ñun parce que ñun dund ñu dund bu weesu ni ñuy dundee ni ñuy dundee rek la doon dundee ñun. bëggan ne fii dem foofu kon lu ko mën a arriver foofu ci ñamu seqaloon liggéey la ak borom place bi nga xamante ne moo ko seere di ko liggéey loolu loo xamante ne waru koo liggéey bi eh, mbir mi amee ñu bari nee nañ aji dañ koo génnee fii ci dëkk bi dañ koo génnee ci këram yi eh, ñu bari wax nañ loolu yow mos nga koo génnee ndax mos ngaa am moom problème aji kenn matu koo génnee ci kër gi fa mu jógee mën a ñëw fii tamit kenn matu koo génnee fii def fi nekk ak samay doom yoo xamante ne ñoom ñoo maase di ànd ci dëkk bi di jàng ci dëkk bi di def comme ni xale yi def amu fi problème kenn mosu ko fee jiñ saj mosul fanaan àll benn la fi bàyyi di dem ndakaar di uti beneen liggéey bu ko gënal lu mu nekkoon parce que boo bàyyi jàng rek doo toog ci kër gi te bu muy bàyyi jàng fii di dem nekkul ni daa jóge fii rek bàyyi jàng dem moom daa demoon école moo moo ñoo tëjoon mu dem vacances da gis loo xamante ne mën na ko liggéey mu ñëw bàyyi eh, kii jàng jël si kayitam fii wàññeeku. bi mu ñëwee tamit tàggul tàggu na leen ne mu ngi ne mu ngi dellu dakaar dama ñëw fii pour jël samay papier. waaw ci musée bi ak bi nekk ci maamam fale dëkk ba. Hmm. bam ñëwee tamit daa waññeeku Dakar ba lii fekk foofu. Hmm. Hmm. lan ngay wax askanu senegal askanu Sénégal xalaat xanaa leen di wax ne ñu def attention. ci mbir mi xew parce que lii xew amul ki ko ku ko fekkee ci askanu senegal dañ ko dégg comme niñ ko déggee rek kon ku ciy wax loo xamante ne xamuloo ko dangay wax lu la neex rek waaw mais amul ku ci mën a wax ne lii la ak lali la dégg rek nga ci am comme niñ ko amee xanaa di ñaan yàlla yàlla saafaral ñu ko ñun ñëpp ba Sénégal <laughs> jërëjëf jërëjëf mbokk yi ah, ni ma ko waxee woon léegi moom mi nga xamante ni moom mooy yar Adji Sarr dégg neen kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko aji kenn mosu ko euh, génne ci kër gi kenn mosu ko génne ci dëkk bi kenn mosu ko fee jiiñ sàcc it mosu fee am benn problème ak kenn yaakaar naa ni euh, loolu it moom mooy seede yi nga xamante ni ay mbokkam yi mu nekkal ay mbokkam yi nga xamante ni ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko yar ñoom ñoo ko seede